yaakaaroo leen ni sëriñ bi dafa nekk di nax kii di Penda Wurus ak góoram bii dinaa ci indi ay leeral ci kanama kanama kanam léegi léegi laata may tàmbali waxtaan bi dama lay ñaan bu dee gan nga ci page bi abonné lal cloche notification ndax mboolem vidéo bu ñu dugal nga mën see jot ci lu gaaw tey nag ay amin yu bëri ak ay kër laa soxla ngir ñu jagleel ko suñu waajur yu jigéen ñi ndax sonn nañ ci lool épisode bi passé daanaka day yeete ci fonk bi nga xamante ne war nañ koo fonkaat suñu ay waajur ci diggante jotaay bi nga xamante ne amoon na ci kii di say ñu ko doon yedd mbokk mi képp ko xamante ne ñàkk nga sa waajur maa ngi lay ñaana suñu borom xaare ko àjjana wayefal suuf si kawam ñi nga xamante ne nag ñu ngi seen waajur yàlla leen suñu borom bàyyi ñu yàgg fi loolu ba bépp yéene bi ngeen am ngir teral seen waajur suñu borom defal leen ko kenn xamul ban gémmeen moo am barke ba tax na amin yu bëri bëri bëri bari laa soxla ci commentaire yi ak ay kër jegleel ko suñu waajuru jigéen ñi kenn amul seen fay mbokk mi li tax ma ne Penda Wurus ak góoram bi sëriñ bi daf leen nekk di leen nax ndax ñu bëri jàpp nañu ni wala boo leen fàttalikoo ki nga xamante ne moom moo di sëriñ bi dafa xamanteeg ak candeele lii nag yàgg seetaan série bi war nañ cee mën a bàyyi xel bu baax a baax nekk wala sax bu tegee dil day demaat gisante wala ak candee la nekk def nañ la lii wala def nañ kalee parfois da nga dégg ñu naan borom yaay ju baax wala borom ndey ju baax kenn du ko def lu ban bopp jàpp ndax gis nga ki nga xamante ne moom moo di say dégg nga kàddu yi jóge ci pendu wurus ak waajuram bi à tout moment même bu fekkee sax teguñu dil ak sëriñ bi mën na delluwaat wax sénario bi nu mu demee seen xalaat lan ngeen jàpp ni pendu wurus waaw wala déet tontu leen ma ko ci commentaire yi ca commentaire yam